Maam Mor Anta Sali wàccee la njëkk a résister ñoo ñëw proposé ko ne ko dañoo bëgg nga ànd ak buur bi di nga am xaalis di nga am prestige dinga am lii dinga am sëñ bi ne leen baax boobu ñaataat la war a toll ci saa mi war a toll ci ay ñaar fukki at vingt ans maanaam waajuram moo nekkoon xaadi waaw boobu moo fi amoon comme sa njub ak sa maandu si lépp dañoo bëgg a dem nga jaali ko ndax sa waajur xaritam la woon ñaar ba tamit place bi mu yore woon mu jox la ko mu ne waaw mën na ma ànd yéen de ngir njaal bi ndax comme wala réem la woon mën naa koo jaal bi waaye nag bu dee place boobu moom mu soxla moom nga xam ne sax dañ ci doon tooñ ba sëñ bi wax sànq maanaam dafa am suñ benn professeur bu ñu doon wax wax mën nañu les les notions ou bien les concepts même les idées ne doivent pas être exportées ou bien importées comme des prêt-à-porter. xam mm-hmm. jii bu nee la république. Mm. wala ñu ne la la laïcité notion la mu mun nañu jox benn exemple bu simple mu ne tey jii bu ngeen jëloon avion xale bu ndaw mu ne ko dessiné ma avion mm. xale bi mën na dessiné avion. fas wala maison wala dara mu ne même même professeur d'université sax boo ko wooyee ne ko dessiné ma démocratie du ko mën. dëgg la loolu wax nga ko ci téere bi lire naa chapitre boobu. mu ne mu ne loolu li ñu siy jàngate mooy notion bi société bu ne selon sa ay réalité yaay yaay jël waaye waroo ko jël na ko beneen dëkk di defee nga bëgg ko pratiquer noonu sa dëkk mm. mu ne loolu du mas dox parce que mu ne les éléments d'une civilisation sont liés à une mentalité héréditaire moo tax tey jii tey jii da ngay xool lu mel ni euh, la la révolution de Thierno Souleymane Baal mm-hmm. boo xoolee maanaam charte bi mu teg charte charte chart chart bi mu teg maanaam si wàllum naka la ñuy gérer état ak naka naka lañu war a defee transparence ak ak ak équité. ak mhm. gestion bu baax. Mhm. man mu mu mënoo gis àdduna bi lu gën a tegu loolu ci yoon. Mhm. léegi ñun ñun ñi ko moom mu nekk Sénégal lan moo tax mënuñu ko jël inspiré ci ci gestion d'état Serigne Touba euh, euh, Samba Lawbe euh, buuru Jolof. bind na Serigne Touba nag dama bëgg nga digal ma conseiller ma naka laay gérer sama royaume Serigne bi bindal ko lettre boo xam ne tey jii mënoon nañu koy jox président ba fi nekk mu di ko lire. Mm-hmm. te maanaam boo ci ku sukkandiku mën nga am gestion boo xam ne ñu am lenn lu ñu lay xebate. mais malheureusement dafa mel ni que dem référé bu feneen wala ci yeneen bind moom lañ jàpp ne loolu mooy kii état te fekk na ñun. li ñu soxla mooy suñu état fii ñu nekk nii problème yi nit ñi am lan lañ koy résoudre te loolu ci suñu ay réalité rek lañ mën a jaar ñu waaw ñi ñi ñi si kii de par exemple ci wàllum économie euh, am na dafa naa yaa ko doon laaj sànq ci wàllum kii euh, docteur Khadim Bamba mm. Khadim Bamba Diagne professeur économie la bind na benn livre ci ci idéologie ci économie mouride livre bu am solo am ñu commencé am conscience moom sax am nañu yaakaar daloo ko fii alxames wala waaw loolu maam yooyu yooyu initiative yooyu buy am depuis daal en tout cas man seetlu naa ñaari at ñetti at yi production intellectuelle yu bëri ñi ngi ñi ngi ci ci aspect yu bëri ñi ngi aborder yoonu murit loolu bu tasa bu a yokk nag yaakaar naa ne dana mujj nekk ba accès au ci ci ci ci population mu nekk lu populaire. te boobaa rek boobaa triomphe lay nekk.